Baye Net Working dafa nekk euh, bànqaas boo xam ne ci ci bàyyi ci ansaaru din la bokk gannaaw bi ñu nuyoo sunu sëriñ muy Cheikh Cheikh Mouhamadul Maay Ibrahima Niass nga xam ni mooy xalif général de la Fayda Tijaaniya ak nga xam ni moom moo ko nekkal fii si Dakar muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass nuyu tamit imaamu Grande Mosquée muy Cheikh Ahmed Tidiane Ali Aliou Cissé ak euh, le président Jamiatu Ansar Din Cheikh Cheikh Cheikh moom moom Cheikh Mouhamina Ibrahima Niass ñu ngi nuyu leen ñëpp ak muqaddam yi suñu si jiitalee euh, Cheikh Mohamed Bachir Ndaw rek ak taalib ak suñu bokk taalib yi liñ fi tax a toog nag moom mooy woote ci la nga xam ni bàyyi taxawal ko naaw ñu taxawalee Jamiatu Ansar Din nga xam ni ba mu koy taxawal lam ca bëggoon lenn rek la moom mooy taalibe yi booloo doon benn sëriñ ne ñun ay ndaw lañ te pays bi manqué wu dara am na compétence yëpp ni borom xam-xam yaa ngi fi waaye tamit lu ñu bëri bëri bëri ci ci ci àdduna bi mat na plus de deux cent millions yaakaar naa ni deux nombre boobu chiffre boobu dafa war a nekk njëriñ kase njëriñ sur le plan économique gannaaw bi nga xamee ni jamono ji àdduna bi nërmeelu na coronavirus bi ñëw na Euh, euh, valeurs de valeurs yi jikko yi yàqu nañ foofu nag lenn rek moo ci mën a aidé mooy ñu delluwaat fi ñu jógee nag moom mooy suñu tarixa yi moo tax Sénégal dañu war a fonk suñu tarixa yi ñun nag li nga xam moom la ñu andi ci bàyyi nañ ko ñi nga xam ne taxawal nañ ko depuis deux mille deux mille dix neuf gannaaw ba ci amee digal suñu xarit yàlla ko yàlla euh, Pape Cheikh ñu fettaliwaat ko ak Mouhamadou Maye Cheikh Mamadou Maye Ibrahima ak Cheikh Mouhamadou Amine ñu ñëwaat ñu ne li nga xam ne moom la ñuy taxawal mooy naka la ñuy def gannaaw ba nga xamee ni àdduna bi kenn ku nekk yaa ngi jéem a xool sa côté ak say mbokk ndax ngay jàppalante ñu tam ñu ne kon ñu ay tànge bàyyi war nañ mënoon jàppalante amalante njëriñ suñu biir moo tax ñu taxawal bàyyi networking bi nga xam ne lenn rek mooy njëriñam mooy ndaw ñi ak mag yi entreprise yi ku nekk ñu xool naka la leen di lëkkalee réseau professionnel kese ci réseau boobu nag ñu ne ren dañuy am di programme bu mag mooy fexe naka la ñuy dajalee ndaw ndawu pays bi ci àdduna bi yëpp ñëw daje fii Sénégal lan lañ fiy def nag ñu ñëw waxtaan ci place su ndaw ci développement place ndaw ci économie waaye place ndaw ci l'islam waaye tamit place bi nga xam ni. Euh, tarixa tijaaniya waaye rawatina faydu bi ñu koy joué ci lislaam waaye tamit loolu Baye Niass ci li nga xam ni moom mooy dajale dajale àdduna bi dajale dajale xeeñ donc forum boobu noonu dañ ko def le 4 ak le 5 septembre 2021 fay def nag forum bi lan mooy njëriñam fexe ba nga xam yi fasantikoo ñu ñëw wax def ay waxtaan dina am ay exposition ñu ne entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi wala ci gox yi fàttali fasantikoo ñu ne leen ñëw leen ci forum boobu ngeen ngeen wane seen i seen i liggéey ñu mën a def ay mise en relation ñu nga xam ni tey dañu nekk ci transformation muy saabu ak lu mënti doon ne leen ñëw leen ñu organiser leen foire ci boobaa noonu waaye li ci gën a am solo aussi ci thématique yi nga xam ni am nañ ko dañoo bëgg déparé tam dañuy wax ni hackathon hackathon faydu hackathon sax koy doole dañ ko ci mooy loo xam ni liggéey boo xam da nga ko doon def ci ci ay weer nga def ko ci ñaari jour pour andi ay solution ñun nag dañuy toog càmbar xool ne lan mooy problème mu Medina Baye wala lan mooy problème mu pays bi ci ay xarala wala lu mën doon ñu woo ña nga xam ni seen xam-xam loolu la maat ñu tëjee ci benn néeg rek ne leen yéen deux jours yéen xalaat leen paree ñoom ci jour boobu deux jours yi dinañ génne ay solution ca la nga xam ni loolu la ñu soxla li ci des mooy. nañ lancé benn concours de business plan gis ngeen ni Sénégal actuellement ndaw ñi ñu ngi ne amuñu liggéey état bi ngi def li mu mën waaye nu ñooy état moo tax dañoo war a ñun ñëpp jóg gën a góorgóorlu apporter une solution donc dinañ lancé concours de business plan de projet boo xam ni ña gën a ràññeeku dinañ leen dinañ jàppal leen ci ci ay formation waaye itam jàppal leen ci ay ci ay financement donc ci gàttal loolu moom mooy moom mooy forum bi ñuy woote rek aussi mooy. na kenn ku nekk jàpp ni bàyyi networking bii moom moo ko moom ndaxte taalibe bàyyi macha allah bëri ci àdduna bi waaye xamante wu li nga nekk ci entreprise toog fa ay at wala un an nga gis ni téléphone day sonné rek nga doon xam ne kii sa mbokku la wala nga gis xam ne kii mbokku taalibe la léegi nag valeur ajoutée bi valeur humaine boobu noonu ressource humaine yooyu dañu war a mën a capitaliser. ba nga xam ni lépp li nga xam ni bàyyi bi ñu waxoon ne gis na ay taalibe nekk ci buuri suuf donc buuri suuf loolu rek la mooy lu ñu soxla rek lu ñu songandoo daan ko waaye tamit ñu xam ni solution yi nga xam ni Sénégal soxla na ko taalibe bàyyi nekk na tamit bu na ci nga xam nekk na seen loxo moo tax ñu ngi woo taalibe bàyyi yëpp ñu ñëw jàpp ci bàyyi nekk wëkk bi ñu réseau wante ñu jàppalante ndaxte jàppale mooy doole te wax ndax waa wax nañ jàppalante nañ jàpp ci buumu yàlla bi te ñu tàqali ko moom nag buumu yàlla boobu nag war nañu ko moom mooy Sénégal moom mooy tarixa tijaaniya te nag moom mooy fayu tijaaniya moo tax nañ booloo loolu benn donc loolu moo doon kàddu yi nga xam ni dañu bëggoon léegi. présenté leen programme ba def bon ci bu tudd Fityat programme boobu nag lu ko tax a jóg mooy koo ko dimbalee ndaw baa ngi ñi nga xam ne amuñu liggéey pour ñu wutal leen liggéey wala ñu ñu dimbale leen pour accompagnement comme ci d'entrepreneuriat day dimbale aussi day dimbale day dimbale ndaw yi tamit pour accompagnement ci yenn structure structure yi ak sunu entreprise en partenariat yi euh, dafay former tamit jeunes yi jeunes yi pour ñu am métier ci côté développement personnel wala renforcement de capacité